aouzu billahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmaan irrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balwaq di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun seen chaîne bii di Firi Guent TV officiel koo xam ne danga am laaj booy laaj ci wàllu gént dugal ci vidéo yi doxe naa explication yi fi ngay jaar pour ñu firi la sa gént li leer mooy du par appel téléphone xam naa ni wax naa ko ci vidéo yëpp teewul di njàng ñi woo comme wax naa ko teewul ñu ngi koy def <laughs> may ma jël sama ay principe bopp ku am gént jaaral ci yoon yi defe naa explication yi leer na nañ ñi defal audio whatsapp man benn système laay liggéeyal système nekkul par personne ay individu par appel téléphone laay travail ku am gént baal ma nga topp ci système bi incha allah da nga jot sa réponse ci waxtu yi ñu ko soxlaa incha allah tey ñu ñëw ci gént football football bari naa ci ay laaj lool lool lool lool lool incha allah euh, danaa ci def première partie deuxième partie bi dinaa ci dugalaale handball basket ak yu mel noonu mais première bi ci football la ñuy indi tey li ngay jàpp mooy football ci gént yii lay faral di firi ci aji gént ji football danay firi yow léegi léeg dina dellu ci sa personnalité yow aji gént ji yow mi ko gént dana firi ne yow nit nga koo xam ne ku bëgg fongo ku bëgg ay caaxaan nga nit koo xam ne dangay sànq sa temps ci loo xam ne amul njëriñ léeg-léeg dina ko firi euh, euh, balaa may ñëw ci dëgg-dëgg nag am na koo xam ne maanaam dafa bëgg football ba chaque jour mu ngi ci di seetaan di seetaan wala koo xam ne liggéeyam métier mooy football kooku ñaari la ëpp day dellu ci xadis nafs bu dee loolu mooy sa métier incha allah wala danga nga nekk ci di bëri loo koy seetaan bu la ci gént gaaree mën nga jaar ci système yi ñu gën la jox explication mais règle bi générale moom lañuy ñuy firi maanaam xadis nafs mooy nit ki da nga bëgg fubal du ñàkk léeg-léeg nga ciy gént da ngaa nekk di ci yëngu du ñàkk léeg say gént di ci ñëw moo tax ma ne li ci ëpp xadis nafs lay doon mais règle bi générale ci fubal lii may indi la léegi dina firi yow ci sa boom bopp nit ku bari ay caaxaan nga nit ku sànq sa temps ci loo xam ne amul njëriñ benn léegi dina firi yow aji gént nit ku sàggan nga ci sa wàllu jaamu yàlla sa diggante ak sa borom nekkuloo nit koo xam ne ku sàmmoonteeg li la yàlla sant la léeg-léeg laay wax toujours ngay bàyyi xel terme yi léeg-léeg dina firi nit koo xam ne danga jóge ci dëkk tukki dem ci benn dëkk pour wuti liggéey waaye soo demee liggéey ba nga cay am maanaam la nga fa doon wuti daal du du doo fa am wallahu taala àll yàlla nag moo xam waaye li ëpp ci li ñuy jàngale ci firi gént léeg-léeg kiy gént di football wala nekk ci match terrain football wala di seetaan football danaa ñëw ci jotaay yi léeg-léeg dana firi tukki jógee ci dëkk maanaam dem immigré ji wala lu mel noonu dem di wuti pour am teraanga waaye daanaka la fa yóbbuwoon toogoon moo koy tane léeg-léeg dana ko firi maa ngi ci ñetti mbir yoo xam dana ko firi gum ñeenteel bi gént football wala nekk ci terrain football wala di ko seetaan léeg-léeg dana firi yow nit ku bari looy jàppante ak ay nit nga maam nit ku bari histoire wala sa réeroo ak say nit dana bari léeg-léeg mu firi nga nekk nit ku bari ay noon wala ay wujj dana firi yooyu ci gént léeg-léeg dana firi ay nit ñoo xam maanaam yow aji gént ji nga nekk nit koo xam ne da nga bëgg bëgg bëgg mën a mën a mën mooy def naa li ñu tuddee égoïste ananiya maanaam nit koo xam ne chaque jour sa bopp rek nga nga xam sa bopp nga gëm dana firi léeg-léeg échec ci labat maanaam di labat euh, xale bu jigéen pour takk ko walla xaale bu jigéen gént ku lay labat échec dana ci am kon yëpp dana koy firi ñu ñëw ci tafsir bi euh, balaa ñuy continuer ñu wanaat leen garab yi leen doon faral di won kii ay càngat la cangat bu amul moroom la ci wàllu kaaraange koo xam ne danga am gàllankoor sa jafe-jafe mooy lépp lu aju ci rab seytaane jinne liggéey moo la jàpp pexe noonu wala yu mel noonu boo jëfa jokkoo ñun mën nga ko am baax na lool ci loolu kii càngatu ubbeekaay la ubbeekaay bu bari doole lool pour wërsëg bayre ubbeeku ci say mbir da ngay wut liggéey mu jafe da ngay bëgg tukki mu jafe wala et cetera ku ko soxla mën nga jokkoo ak ñun beneen càngat bi pour wàllu koo xam ne sa toogaay dafa yàgg ci wàllu sëy bëgg borom kër mu jafe moo la yitteel incha allah wala nga bëgg soxna muy faral jàpp wala jafe wala nga nekk ci néegu sëy am njaboot te ku ci soxla yooyu yëpp mën ngeen jokkoo ak ñun ci numéro yi ngeen bi incha allah voilà. gént football ci détails yi li may njëkkee mooy danga ngaa gént match de football comme ni nga ko miinee ñaari équipe daje di football. nga gént équipe bi nga fubalee bi nga far gagné beneen équipe wala yow ci biir match bi dugal nga bii ci biir match bi euh, léeg-léeg loolu baax na ci gént foofu dana fi di atteindre sa objectif ci say mbir walla boog di xaar dara la ngay xaar yàlla dana la ci jaaxal ndam bu fekkee da ngay fubal ñaari équipe di fubal nga géntu ñu sa équipe dana fi échec ci say mbir doon topp wala dara mbir moom échec da cee am wala yu mel noonu kon foofu baax na da génn di seetaan ay xale ñuy fubal dem nga ci terrain fubal yaa ngi toog ñu ngi seetaan ay xale lan yoo xam ne dañuy fubal lan lay firi day firi responsabilité wala ndombal tànk boo xam ne yàlla mën na laa dimbale daan la gaar ci sa dund wala léeg-léeg mu firi wala boog responsabilité ba lay dénk ci na nga ca da nga réussir kon alaa kulli xaalin foofu baax na da nga teg penalty yi dóor dugg. wala nga am occasion ci football dóor dugal dana fi yaakaar dara walla di xaar dara loolu rek jot li may wax nag góor ak jigéen ñoo ci tolloo fi ma toll dégg su may ñëw ci détail yi dinaa séparé door nga bal bi dugg na wala penalty la wala coup franc dugal dana firi yaakaar dara danga jot boo ko dugalul dana firi échec ci say mbir kama comme ni nga xam ne noonu nga ko gisee ci biir match bi kooku benn la léegi kon ñu ñëw ci dëgg-dëgg firi bi. xale bu góor xale bu jigéen boo xam ne yaa ngi ci néegu sëy am nga boroom kër gént nekk ci match di fubal di fubal dugaluloo ci biir bi kii bi yëgoo ne gañe nga walla ñu gañe la yëg nga ne daal jigéen nga danga doon fubal walla jigéen nga dangaa toog ji seetaan match di fubal nekk ci terrain te yaa ngi ci néegu sëy te seetaanoo ay xale bu dee ay xale def naa war naa ko ci kaw baaxul day firi nit ñu la jege walla nit ñu lay wan ne nit ñu la bëgg lan nit ñu la sopp lan waaye seen pexe jubul seen cofeel ci yow saxul ci sa yow ci yow yow min yow yu ko génn ak ci sa boroom kër wala ci say doom maanaam séq ak nit ñoo xam ne baaxuñu kooku benn la jigéen boo xam ne amuloo borom kër kii bu dee daa gént di futbal dugaluloo yëguloo gañe nga équipe wala comme yi ma njëkk wax ci yow daal yëg nga ne yaa ngi ciy match di football wala yaa ngi seetaan baaxul day firi échec ci labat bu la fekkoon ci ngoro day firi ngoro ga échec mën na caa am léeg-léeg dina firi ay gàllankoor ki xat-xat ci sa dund wala nga nekk nit ku bari ay noonu baaxul jigéen ji ëmb yàggint di football nekk ci terrain football di football baax na ci gént day firi doom bu góor ci yow même bu fekkee dangaa teg penalty dóor wala dóor bal dugal ko ci biir gént dana firi doom bu góor ci yow kooku baax na ci moom di fubal ci jigéen bu ëmb daanaka day baax li ci ëpp su ma ñëw ci deuxième partie dina indi yeneen xale bu góor boo xam ne amoo soxna danga gént di fubal nga gént teg bal bi dóor ko fu sori kaa yi sori na la wala nga dóor bal bi am foo bëggoon mu dem fa wala nga am koo doon paas yëngatu tiir bi daal sori na lool ci biir gént gi waaye fa nga ko doon natt demu fa dafa jàdd dem feneen wala da teg coup franc wala penalty raté wala da ngaa am occasion raté wala yu mel noonu baaxul ci gént day firi ay xat-xat ak jafe-jafe ak gàllankoor ci sa liggéey wala ci sa famille baaxul su fekkee nag ni nga ko bëggee woon amee nga ko noonu door bi sori na fële nga bëggoon mu dem fa dem na fa. baax na ci gént dina firi yokkute ci sa liggéey wala place liggéeyukaay wala stabilité ak dal ci sa famille baax na ci gént bu dee nag yow nit nga koo xam da nga amee responsabilité ndombal tànk kilifa nga ci entreprise la wala ci société la wala wala wala da gént yaa ngi football am nga yéene yóbbu bal bi place sàngam mu dem fu safaanoo ak fi nga ko bëggoon baaxul day fii loola ñu la dénk da nga ca échec maanaam échec ci sa responsabilité wala ndombal tànk bu fekkee dem na fa nga ko jublu baax na ci gént da nga gént mbëkk bal bi ak sa bopp football foo sentiree mbëkk bal ak bopp comme ni nga ko miinee ñu paas la nga mbëkk dugal wala lu mu mën a doon ci mbëkk baaxul ci gént lan lay firi day fii feebar wala tukki pour wuti te doo am yàlla ko yàlla xàjj ala kulli xaal nii ma leen di firile gént yii ci xam-xam bu wér ci texte ci borom xam-xam yi nii lañuy ñuy gént bokkul allo sëñ Sidi damaa gént di fubal nga ne ko fubal lii la non non noonu kenn du ko firee gént ci suñu xam-xam bu néew ci suñu xam-xam bu néew gént bis bu ne mu wax ko fukki nit dañuy bokk gént benn affaire mu firi ki ci kii lii firi ko ci kii firi ko ci kii firi duñ tolloo sans dépend léeg-léeg kii étape bi mu fekk nit ki sans dépend léeg-léeg personnalité wu nit ki sans dépend léegi nit ki kan la su ma wax kan la mooy góor nga wala jigéen nga góor nga am nga soxna wala amoo soxna jigéen nga amoo boroom kër jigéen nga dangaa nekk jigéen ju wérul jigéen nga doon nga sëy ba sa borom kër faatu walla nga tas des fois day am solo léeg-léeg même du fépp nag léeg-léeg mu am foo xam ne day nekkul lu bu ngeen ma dee topp danaa ko expliquer ci détail mais léeg-léeg day am nii la ñuy firee gént football ci xam-xam bi ñu gisagum ci li nga xam ne mooy boroom xam-xam yi jàngale wàllum gént lii lañ gis li ci topp xale bu jigéen wala jigéen boo xam ne doon nga sëy ba divorce wala sa boroom kër génn àdduna foo géntee di football baaxul day firi bari noonu day firi bari jafe-jafe gi xat-xat bal couleur bu weex bal bi yëg na couleur bi dafa weex ci gént baax na day firi cell te xool ci yow wala réussite ci say mbir maanaam nit ku laabir nga waaye réussite na am bu bal fu mu rouge rouge ci gént baaxul day firi gaar gaar ci ay xat-xat ak i gàllankoor ak jafe-jafe bal boo xam ne couleur bu noir la baaxul day firi ay noon yu lay fexal da seen lor mën naa yegg si ci yow wa ma zalika alallaahi bi azizin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu